yow yaa sañcoon association bi nga xam te ne moo tudd saafara hépatite lan mooy hépatite. Euh, waaw man comme ni ko maa ngi tudd Ibrahima Gueye sanc saafara hépatite depuis 2011 euh, hépatite rek bu ñu koy wax feebar la boo xam ne fi muy mujjee mooy ci res restu doomu aadama moom la ñuy wax foie li koy joxe rek virus la en général am na virus bu ñuy wax virus hépatite A hépatite B. a e. waaye boo ko xoolee ci virus yooyu yëpp nag am na ci ñetti virus yoo xam ne ñoom ñooy indi feebaru res bi yenn ñi seet moom en général bu ko borom amee anticorps dañ koy xeex muy dem mooy AAE te ci wàllu lekk lay joge mais virus B C D ñoom li koy indi bokk na ci contamination boo xam ne mooy ñëw ci doomu aadama bi contamination yi nag am na li ñuy wax contamination moom la ñuy wax la transmission verticale de la mère à l' enfant maanaam wàllante bi nga xam ne dafay jóge ci yaay ñëw ci doom am na wàllante boo xam ne li koy indi mooy ci jokkalante deret maanaam comme bu ñuy wax don de sang transfusion sanguine moom la ñuy wax la transmission sanguine waaye li ci ëpp ci feebar bi daal nañ xam ne wàllante bi ci wàllu deret la lay jaar pour ñëw ci doomu aadama dina ko jaar ci yaay jaar ko ci maye deret jaayoo ko jaar ko même ci wàllu sëy dañ koy wax ah dañuy wax la transmission sexuelle donc buñ ko xaymaa kon hépatite feebar la boo xam ne ci deret lay jaar pour dugg ci doomu aadama bu duggee ci moom lan la ko mën a jural bu fekkee ne te teeluñu ko toppatoo mën na ko di lu ñuy wax cirrhose wala cancer du fois sëñ bi Guèye lan moo tax nga xar sa tànk tubéy ne feebar bi bëggatuloo mu dal doomu aadama. waaw jërëjëf euh, une très bonne question sa question bi am na solo lool tey boo ko xoolee fi ñu may wooyee yëpp ñu ngi may wooyee ñu ci bari docteur Guèye parce que dañu yaakaar ni man médecin la c'est vrai que am naa ci jaar-jaar bu bari nag ba tey yàlla def na ci xeex bi ma ci nekk ba léegi maa ngi ci instance bi nga xam ne moo gën a kawe ci adduna bi di xeex hépatite muy World Hepatitis Alliance tey man maa fa nekk représenté Afrique lii ma indi ba foofu nag du dara lu dul man sama bopp feebar bi daf ma daloon bi may boo xam ne. xawma ko yëguma ko mosuma xam ne am naa feebar bi. sëñ bi Guèye dégg naa ne feebar bi bu lay dal doo ko doo yëg dara. dara dara du la metti doo yëg euh, coo dara dara dara. déedéet moo tax ñu naan feebar la boo xam ne buñ koy xayma ci wàllu nasaraan dañ naan c'est maladie silencieuse et sournoise à fois maanaam feebar la boo xam ne buy dugg ci doomu yaramu doomu adama moom du ko xam du ko yëg bu fa nekkee yeewu du togg borom du ko xam tant que parewul liggéeyam borom du ko xam. nan la ko man xamee xanaa ci diggante bi mu dem daf li ñuy wax test de routine maanaam dem dafi ji bilan wala mu dem may deret wala mu feebar ñëbbu ko hôpital doon ko defal ay test en général noonu la koy xamee kon nag feebar bu bu xaw a doy waar la ci wàll woowu. léegi léegi pour dellusee man man li may wax noonu yëpp jot naa ko vivre parce que bi ma nekkee xale nga xam ne boobu maa ngi football nawetaan kade moment yooy laa jëkk xëy ma feebar boobu bon euh, ay ay ay dix ans onze ans parce que ci ngay âge yooyu ngay football cadet ci laa ñëw euh, di football cadet euh, non pas dix ans peut-être ay douze ans treize ans ci la ma dal mais moment boobu niñ ko mënoon ràññee man daal feebar naa feebar bi day ñëw comme palu ndëkk bu la jàppee yaa ki am palui yéen a bokk yem. da ngay mel ni ku si bëru da si man ñu nga doon ooyee sama sama ñaareelu tur loolu la woon. maanaam da nga ba pare ñu ne man man damay siburu tout le temps parce que foo ma fekk sama bëccë da da doon da doon mboq mu dem ba maron ndekete moment yooyu la hépatite bi dugg ci man parce que moment boobu maa ngi fàttaliku feebar bi ñu ma jëkk hospitalisé feebar bii la woon tey te hôpital Dantec la woon fan lañ ma hospitalisé woon pavillon bi ñu wax laye nekk te jamono boobu laye nekk ku fa dugg. lay jeex na. lay jeex na noonu ah, jeex na ku fa dugg sax lay jeex na. mais yàlla defal na ma fa sutura ma dugg fa toog fa ay ñaari weer ba génnaat fa mais ndekete boobu hépatite bi la mais man xaw ma koon parce que boobu jamono boobu tam nit ñi xamuñu ko woon ci turu hépatite. parce que moment boobu liñ ko doon gën a jàppee mooy fièvre jaune pays bi xam nga dañ daan wax ne dafa am pays bu soxor pays bu soxor boobu moo doon yóbbaale nit ñi moo waral ko pal yu rek ñu ne nañ seet pays bi. léegi nag bi ma dalee noonu après ma jaar fa wér mais hépatite day des ci yaramu ma toog ndekete épisodes mu ngi sama yaram ba bi ma duggee armée rek lañ ma jëkk defal bi ñuy may deret ñu def don de sang don de sang boobu man bi ñu paree li ñu ma wax mooy amoo droit may deret amatoo droit may mais kenn waxuñu da nga am hépatite te bari woon nañ ah bon waaw léegi nag moment boobu information boobu jàllagul donc ñu continuer du ndax moom nekk armée nekk armée nekk naa armée ba génn armée man maa ngi génn armée en 2001 après presque 18 ans de service laa génn armée mais bi ma génnee en 2010 sama liggéey bi bees ma ne ko parce que après ma nekk dans le milieu commercial ñu affecté ma Kaolack ma dem Kaolack li ma daal dal xale dal ma Kaolack feebar palu subax ngoon daanu jóg foofu médecin bi bi ñu ko xoolee mun ma yow daal apparemment température bi Kaolack tam teniroo ko ma dellu si waat ñëw dakaar bi ma ñëwee Dakar nag yàlla boole ma benn médecin bu ñu xam Mbaye Paye euh, après Mbaye Paye mu am ku ko remplacé mu docteur Ka moo yoroon feebaru Macky docteur Ousseynou Ka boobu nag moo ma toog topp ma pali bi pali bi palu ba si yàgg benn jour mu xëy na ma mais Ibrahima lii mënul nekk palu parce que ça des mois yaa ngi ñëw palu léegi jaaxal ma léegi xam li ñu def. xanaa loolu kay ay at la léegi mu defal ma li ñuy wax benn test mu ne ma danga may defal test bi mu voyagé dem Burkina Faso ne ma su ma ñëwee nga dima résultat yi ma def test bi man xaw ma lan la def naa test bi daal ndekete test hépatite la ma defal bi ma génnee résultat yi ndekete dafa positif. ma ñëw indil ko mbay pay mbay pay ñibbiseegul benn médecin benn infirmier major bi fa nekk moom a recevoir mais comme dafa xool résultat yi moom lecture bi mu def ni ma ko mën a communiquer rek la ma ko communiquer mooy ne mais mais grand yow foo nekkoon ba fois foi bi mel nii parce que lecture bi mu def mooy résultat yi li muy wane ne feebar hépatite la moom jàpp na ne fois bi exactement dafa am problème. kon feebar maanaam moom la mu ci jàng mais feebar sori na ci yow trop. exactement mais bi mu waxee loolu. mutu de fois sama karaw bopp nag jóg ci tàng tàng bi parce que foofu comme daan naa dégg cancer du foie automatiquement ma def link bi foofu sama lépp jeex keroog bi may jógee hôpitalu Wakam bi di dem hôpitalu Dantec parce que daf ma boole benn médecin daf non moom finalement bi mu defee loolu gis man jaaxle naa daf ma boole beneen médecin cardio bu fa ne médecin cardio bi mu xoolee résultat yi il a compris que ni may wax moom xam na ne bokkatuma. na àdduna tukki na exactement. foofu nag moom kooku moo jël affaire bi mu ne ma même man man médecin cardio fi mu ne mënuma la wax lii na ci résultat yi mais en tout cas ça signale quelque chose léegi li ci man nekk mooy li ñu souligné nii yëpp demal nga yóbbu ko ñi nga xam ne ñooy yor feebar bi mën na ko ñaan la mu ne ma demal Dantec boole ma benn professeur bu ñu wax Pape Salim ne ma naa dem demander renseignement foofu ek ma ñëw Dantec le même jour ni ma dawalee Wakam ba Dantec man maa yàlla ko xam parce que j'étais bi ma accidenté rek yàlla def ma dajeex professeur Pape yu mbay euh, kii professeur euh, Lamine Diouf yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko te xaar ko àjjana ci diggante bi yàlla def na mu génn àdduna Lamine Diouf boobu tey lépp lu ma xam ci hépatite ak lu ma mën ci hépatite ngir yàlla moom la moo tax dama koy ñaanal fu toll parce que li mu njëkk a mooy bi mu ñëwee gis na ne man mii dama jaaxle woon lu may wax mu xool ma ma ci biirum tëj ma ah moom ne ma lan la ma wax ko mu ne ma mais grand lii du dara man ne ko señ bi ah li ñu wax léegi yow am lii du dara ma commencé énervé mu jël résultat yi xotti ko ne ma on reprend tout à zéro fii dara amu fi. jamono jooju sa xel dalul. non non parce que am na information bu moo jot yàq sama xel ba pare mais moom bi mu jëlee daf ma def defloo benn bilan rek maintenant bu gën a approfondi ma dem résultat yi génn bilan bi ñëw mu tag ma nag ne ma monsieur Guèye liñ la wax ah yow li ngay xalaat yëpp amul mais nag il faut reconnaître que ne am na problème bu mooy da nga am feebaru hépatite te feebaru hépatite bi virus bi yeewu na sa yaram mais nag lu ñu mën a delloose la chance bi nga am mooy ñëw nga ci ñun comme ñëw nga ci ñun rek xamal ne léegi sa problème rek la la. Ah, mu ne ma nag léegi nag du yomb baat boobu lu ma jëkk mu ne ma du yomb léegi bi résultat yi génnee mu ne ma dafa am loo xam ne moom la ñuy gis mais il faut moom lu ñu yokkaat xool ko li tax mu bari sama yaram il faut ñu xam ne la. mu defaat loolu ma yeneen analyse yu a cher encore ma euh, mu ne ma pasteur nga koy ma defee ko pasteur une semaine non deux semaines après trois semaines résultat yi génn parce que français ñu ko yóbbuwoon bi résultat génn rek moom ni mu doon seet mu am ko mooy li tax affaire bi bari sama yaram amul na cause bi mu ko xooleen rek ñu ne au lieu ma am hépatite B rek mais dama amaale woon confection ak hépatite D man ñaari hépatite la amoon moo waroon affaire bi gaaw noonu ba egg ci foie bi. maanaam depuis l'âge de 13 ans nga ko am. ba ba ba boobu boobu maa ngi maa ngi armé donc j'avais déjà bi may génn armée je suis sorti presque avec la quarantaine donc mu ne ma affaire bi yàgg na sa yaram léegi nag. sa yaram sa léegi li ci des mooy da nga am co-infection co-infection bi nag moo waral nag virus yi bari sa yaram ni mais lu ñu mën a jël en charge la ne ma nag du yomb parce que boobu mu ne ma benn garab moo fi am buy jël en charge yow sa fi nga ko mën a demee da ngay jël garab gi garab gi nag mu ne ma cher na. mais xam nga ñu ne garab bi cher na te ñun fii Sénégal looy xalaat ay 5000 10000 sama xel foofu la ne ma jël génn hôpital di wër pharmacie yi pharmacie bu ma dugg ñu ne amul garab yi te daan teg à Wakam lu ma bon bon def naa di pharmacie. loolu day day yokk nja njàqare. mu ne ma amul ma ne mais yaa ngi problème alors ma xëy la ci médecin bi ne ko ma yow li ma li ma jox garab amul si dëkk bi mu ne ma non xam naa da nga def attention mais naa la nga dem pharmacie gi ko ma ne ko man loolu dégguma ko. mun ma pharmacie bi ñoom rek ñoo koy joxe fi mu ne ma dem la même jour Guigon dem jox leen ordonnance bi ne dama bëgg a faju ci garab yi médecin bi ne ngeen defal ma facture bi ñu defal ma benn facture proforma mais facture proforma bi kii ko jëkk def ko jigéen la pour wan la li nga xam ne moo ma moo ma poussé moo tax ma àgg fii ki ko def ko jigéen mais bi mu ko defee dafa pare mu ne ma jox ma facture bi ma xool facture bi ci 7 millions 300. automatiquement je me suis énervé parce que 7 millions 300 si koy xaar ay 10 ma oo ndaw si ma ne ko soxna si mooy ma ne ko bu ñu la joxee liggéey da nga koy xool sa facture bi da nga ci jum mu jël facture bu xoolaat ko ne ma monsieur gay juumuma mu ma ne ko soxna si yow da ngay fontu. du woon benn garab mais traitement la woon. c'est c'était un traitement c'est ko man au fond foofu laa defee xam nga boo boo jàqee alors moom daf ma defal facture bi prix benn garab. mais mu defal ma ko traitement bi c'est ndekete c'est sur un an man loolu yëpp je ne le pas léegi mu jox ko beneen médecin bu góor kooku ñëw reprendre la facture à zéro génnal ma le même montant ma ne ko ma yéen ça va pas waa ji ne ma non monsieur Guèye faites attention c'est-à-dire c'est des injections tu dois prendre une injection par semaine et dois le prendre pendant 48 semaine sa fait un an c'est la facture totale qui fait 7 millions 300 man moo ko fa jël sama facture dem sama yoon. jour boobu fi ma gaari sama oto dama ko fàtte biñ ma joxee facture dama génn dox ba kat daal soog a rendre compte que ne man yor naa oto ma oññeekuwaat ndànk jël oto bi delluwaat ci directement ci médecin bi ne ko mais docteur yow ñii lii lañ ma jox mu ne ma pourtant waxoon naa du yomb mu ne ma rek je vais te mettre devant les lii mooy sa traitement yow amoo beneen solution leneen existé wul pour cas bi tu as une confection avec l'hépatite D te D bi lii moo koy jël en charge et forcément da koy commencer en urgence. nga def feebar bi ñaata donc moom boo xoolee depuis xale. kon tey tey si j'ai la soixantaine te à 13 ans lu mu bon bon feebar def na sama yaram 50 ans. Euh, lan nga def ba feebar bi génn ci yow. léegi nag garab googu nag cher noonu métti woon na lool mais fa lépp commencé parce que garab googu bi ma koy jël moom moo permet déjà hépatite D bi ñu mën ko commencer éliminer. bu doon hépatite B bi rek amul problème parce que hépatite B tey am na garab bu yomb 5000 francs nga faju si mais hépatite D bi malheureusement bokkul ci loolu garab googu du ko jël en compte léegi bi ma commencé garab yi li ma njëkk def mooy ah xool li ma yoroon sama gafaga bari woon 300000 francs moom li nga xam ne moom laa yoroon man en banque li ma njëkk a jël ma dem def jël ko garab bu jar 159000 francs déjà 300000 francs matul ñaari garab ma dem jël ko complété am ñaari garab. pare dem seeti waxtaanaa sama patron sama employeur parce que boobu maa ngi liggéey si kaas ma dem waxtaanaa sama directeur exposé ko cas bi ne ko nag dama soxla xaalis pour faju moom ma jëkk a lebal 1 million 500 ma jël 1 cinq 500 yi def ko ci garab gi bi ma demee ne ba loolu au bout de quelque mois dafay jeex parce que 150 000 par semaine mois bi 300 300 presque 350 000 la ñu dem. un mois deuxième mois bi il fallait mu wutaat xaalis ma dem lebi ci sama banque debaat un million jël continuer traitement bi bi ma demee ne ba foofu résultat yi nag baax hépatite D bi wàcc ba ñu dem benn moment ñu commencé ko mu commencé faible mais malheureusement j'avais plus de moyens ma ne médecin bi dama koy arrêté mu ne ma nag waroo ko arrêté mais exactement dama ko arrêté six mois après mu dellu sa waat il fallait reprendre ma jël li ma jëkk a def jël lii nga xam ne moom laa yaakaaroon sama njaboot terrain bu ma commencé woon jël ba am yaakaar di ko defar moom laa mujj jaay jaay ko mu jël ma en charge encore parce que pendant deux ans et demi deux ans et demi ma arrêté bi ma arrêté ndekete si suuf affaire bi reprendre moment boobu mu reprendre te delluwu delluwuma moment boobu nag ndekete laal na gën na yokk complication bi ci foie bi. sa res bi commencé am ay jafe-jafe. boobu jafe-jafe yi taxaw na bi ñu ñëwee ba xool ko ne complication bi am bon léegi nag. ñu ne man rek léegi rek wax dëgg yàlla li ci des moom lii dinañ ko xool mais opération dina ci am mais avant opération bi di ñëw dañ ko doon topp mais topp bu difficile dañu def euh, euh, échographie du ñu jox précision pour li ñu war a xool ba mën a intervenir bu ñu jógee ci échographie dem IRM du précis scanner IRM yooyu ñett yooyu la médecin bi doon def finalement benn bés laa xëy benn ajjuma la du ma ko fàtte ma fekk ci liggéey ma nekk caaro xëy rek biir bi metti dem jam bu metti ma toog foofa nag ma jaaxle toog ci oto bi noppalu ko noppalu ko benn moment mënatuma ma oo médecin bi ki may suivre ne ko nag voilà la situation si la ne ma Guèye dañuy julli bu ñu jullee ba pare ñëwal ma ñëw mu dugal ma salle scanner résultat yi dafa génn moo ma ne moo Guèye li ñu doon seet gis nañ ko mais taxawaay amatul il faut que tu sois opéré dans les deux semaines pour te sauver. foofu bi ma ko waxee mu wax man rek yan piste laa war a mën a am ne ma mën nañ ko def fii mais fii moyen yi demeegul woon noonu liñ mënoon def radio fréquence réglé ko ay kii mu ne ma c'est la solution lii tane nga def chimio ambulisation bi ma ko xoolee ñu xool man ma koon def fii mu ne ma extérieur xool piste ma seet piste extérieur boobu yàlla def comme moment boobu fekk naa liggéey bi ma def ci association bi yóbbu na ma sur le plan international j'avais un collègue le plan africain benn médecin bu ñuy wax docteur professeur Gamal ci laa au professeur Gamal il est en Égypte ma posé ko problème bi yónnee ko résultat yi mu ne ma ça tu dois même par attendre utal bie nga ñëw Égypte noonu ma dem toppatoo rapidement ak sama famille waxtaan ñu xool billet am ministère de la santé ñu boole ma ak ñoom le ministre Awa Marie Seck instant boobu aidé ma aussi ci billet bi ma jël li ma am dem Égypte dañ ne ma dans deux semaines waroon opérer au plus mais gis nga bi bi ma egsee ba mu xool résultat yi dans les 48 heures dama opéré taxaw ma fa. il y avait urgence. il yàlla def si sutura opération boobu baaxoon na wax dëgg yàlla mais malheureusement opération la boo xam ne daf lay permettre nga survivre pour 5 ans efficacité am 5 ans la mooy dundax moom pendant cinq ans ki nga xam ne nag moo indi sama bu ma yàlla joxee wér bi tey kooku laay profité ma taxaw ci ma gërëm ko sant ko muy le professeur Moussa Seydi ko ci. maladie infectieuse mais ñëpp xam nañ ko à travers Covid mais avant ak Covid je pense Ebola amoon na fi Seydi yi comme yàlla boole woon nañu ci wàllu hépatite bi mu gis liggéey bi may def ci wàllu association bi moom ma oo benn jour ci biirum tëj ma ñëw mën a ma géy baax na tu étais gentil yaa ngi dox askan bi mention spéciale mais à partir de maintenant li nga defoon dafa am temps il faut que tu penses à toi-même ne ma pense à faire une greffe du ma ne ko greffe mun a mooy solution ñu waxtaan ci mun ne ma nag du yomb mais bu ko ragal demal ma ne ko ah professeur mu ne ma jëlal rek nga laajte ay renseignement mënta ma laajte ay renseignement man ma jël ay renseignement laaj France France prix biñ ma jox ko jox bañ ma ko joxee moom dama dama bàyyi lépp parce que on m'a parle de quatre-vingt-quinze millions pour def li ñuy wax transplantation du foie on avait un ami japonais boo xam ne mu ngi liggéey aussi ci wàllu hépatite ma contacté ko pour Japon moom mu jox ma 80 millions ma ne lii jaratul waxtaan Seydi itam bi mu xoolee avec la Suisse am nañ fa benn am bi fa nekk Jules Wonder ñu demandé renseignement yi mais c'était à peu près au même prix la France Seydi moom orient mu ne ma mais comme tu as un ami en Égypte te moom moo la waxoon dem nga mu opère la mais Égypte ils sont bien essayez par parle ma wax Gamal oo ko jël résultat yi ma am wax ko ko mun ne ma oui c'est possible léegi dinaa demander renseignement après ma wax la moom bi ñu pare bi mu defee recherche en Égypte mu ne ma lu mu bon aux alentours de 35 millions mën nga def opération ah, bi ma ñëwee wax ko Seydi te moment boobu fekk na bi professeur Lamine Gagnon Pape Saliou Mbaye moom may suivre ma ñëw wax ko Pape Saliou Mbaye aussi wax ko résultat fi mu toll mais bi ma ko joxee le prix de tu l'auras nulle part mu ne ma ndëkk yombul mais loo man jéem ko foofu nag laay remercier le professeur Seydi bi ma ñaatee ci Seydi waxtaan si moom mu ne ma ah amoo ko awma ko waaye yàlla am na ko nañ jéem mu ne ma jéemal li nga man demal seen mbokk waxtaanal man tam dinaa jéem a utiliser relation yi maam ñu waxtaan ci ba xam ma nekk ak sama famille oo leen réunir leen mes frères ñu waxtaan sama jeune frère ak sama grand frère jëm ñu taxaw ñu dajaloo ñu ne ma opération bi da koy def incha allah bu ñuy leb bu ko nekk di jaay sa alal tam dinañ ko def parce que jar na ko ñu commencé xool lan lañ mën a réunir bi ñuy réunir premier temps fi ñu taxaw bi ñu dégagé on a vu lu mu gaaw gaaw benn enveloppe bu 10 millions mën na génn ñun suñ biir en famille ma rendre compte Seydi ne ma baax na Seydi moom ndekete moom tam mu ngi def ay contactam Seydi boole maax presque lu ma juróomi doomu aadama yoo xam ne bëgguñu ma tudd seen tur su ma sañoon dama koy def waaye baax nañu koy wax te dama leen di tudda tey dama ko mës a bañ mais tey dinaa ko def parce que nag bëgguma dem ba génn àdduna subaa jaam yàlla na yeex te ñoo ñu mën a mën leen gërëm publiquement muy le ministre Cheikh Tidiane Gadio Samuel Sarr Bamba Ndiaye Essa y avait le colonel bi nekkoon présidence donc ñooñu ñëpp ku ci nekk bi mu yëgee affaire bi mu def ko yëfu boppam. ñenn ñi jël li ñu am ci wàllu xaalis dimbalee ma ko mais ils ont tout fait surtout Gadio Cheikh Tidiane Gadio yàlla ko yàlla fay ba président de la république jot affaire bi. kooku ja non mais moom xam nga du temps wu Ablaye Wade la woon moom donc mais quand même c'était un conseil du président bi ko président jotee vraiment après mu soutenir ma avec benn enveloppe de 10 millions. donc ci tàng-tàng bi presque 20 millions taxaw na sama famille ak ah bu président. ah presque ñu ma jot 5 millions yi jóge noonu ñu takk bagage yi maa sama Cheikh Ahmed Tidiane Gueye maa ngi koy gërëm di ko sant parce que dafa bàyyi liggéey bépp ànd man Égypte mais surtout tam sama doom bi ñu wax Ngoné Gueye mooy sama taw parce que il fallait avant may dem maam koo xam ne dañ koy testé defal ko diagnostic parce que mooy doon ki may may fois muy sama doom mooy sama taaw. sa doomu jigéen sa taaw. donc moom noonu bi ñu kiwee famille bi yëpp sama ñetti doom yëpp volontaire na ñoom ñoo koy def ñetti jigéen mais bu ñu defee test yi xool nañ ne moom moo compatible ak sama fois donc moom biñ ko ko xamee ne ak comparé na noonu la ñu àndi dem Égypte c'était en 2021 donc 2021 boobu bi ñu demee Égypte wax dëgg yàlla bi ñu ñëwee c'était pour un mois une semaine bu njëkk bi diagnostic yeex yooyu deuxième semaine bi ñu def opération bi après sama doom toog fa peut deux semaines le temps que mu rétablir man ma toog peut-être un ou deux mois mais ñu egsee lépp changé déjà ñi ñu oo woon sama xarit bi biñ ñëwee ba ci hôpital am ñu def test yi def lépp ñoom ils ont trouvé que transplantation bi duñ ko mën def il fallait ñu dem ci beneen hôpital bu spécialisé mu am ñu ñu booleel muy Mansoura ñu dem Mansoura donc fekk fa benn professeur Abdou Wahab vraiment l'un des maire en Égypte bi mu ñu accueillir mu defal ñu bilan defaat lépp problème amaat problème bi lan la ñu pare mu ne ñu sama doom dootuma mën a may fois il faut ñu delluwaat Sénégal ba am keneen foofu nag bi ñu xool situation bi nara a paasaat delluwaat sama doom jéngu ne mais mën nañ ko wax lan moo tax du mën a may ñu noo dafa amoon benn benn comment on appelle ça inflammation léegi ak ah, anémie sévère léegi nag mu ne mais est-ce que mën nañu ko traiter fii sur place waa dina ko bien sûr boo ko buggee mais ça va prendre un peu de temps parce que il problème bi ñu am déjà mooy bi ñu ñëw hôtel lañ logé woon donc quelques jours en hôtel deux semaines mu bousee ñu beaucoup d' argent léegi comme nañ foofu lañu ñu changé dem jëli ji benn appartement di ko fay c' vraiment li ngay fay appartement boo xoolee deux jours yi ngay fay hôtel wala trois jours moom ngay fay appartement pour le mois ñu jël ko léegi foofu nag fa la lépp commencé mais fa la lépp jaari sotti tam sama doom bi yàlla dafa sutura ñu defal ko traitement bi anémie bi mais inflammation bi am amul tam dañ résultat yi génn bi ñu paree médecin bi ne là maintenant on peut passer à l'acte maa ngi rappelé bu baax ñu ngi fa ñëw c'était au mois de septembre 2022 lañ fa dem septembre 2021 donc décembre toog nañ fa ba décembre ñu soog ñu defal opération bi opération bu difficile parce que transplantation du fois la léegi il fallait le même jour ñu ñaar la ñuy opéré ndoo man sama opération dafa durer presque 12 heures de temps sama doom opération bi duré six heures de temps donc ñu jël ci moom cinquante pour cent de son foie man dindi sama bos sama res jox ma cinquante pour cent de son foie mu doon lu metti lu ñu lu man maa ngi doon faju pour man mais dama tiitoon pour sama doom en même temps mais yàlla daf ci suturé ñu toog fa quelques mois pour moom deful sax un mois yàlla def mu mu dellu si parce que fois mooy organe bi nga xam ne doom doomu aadama boo ko daggee dafay régénérer waat dafay dellu si comme foie bu bees yàlla defal mu tane mais après il a eu bi bàyyi ma fa il fallait mu toogaat ak sama frère toogaat na fa 3 mois 4 mois mu soog a ñibbisi man ma des man toog naa fa presque 5 mois ba 6e mois laay soog a ñibbisi yàlla def opération bi réussir bi mu réussir donc ça veut dire que fois bi toog na normal mu résisté na muy foie bu bees bi mais yàlla defaat ci benn sutura mooy hépatite bi nga xam ne moom ma indiloon mooy feebar bi ma indiloon feebaru res boobu finalement hépatite bi ci boppam yàlla daf ma doñ sama yaram mun ne ma mais géej di ñemeem gu ma ko wax ne ma dañ koy contrôler contrôlé waat na ko pendant quatre mois pour soog a mën a confirmer que ne hépatite bi lañ si yaram kon nag combat bi yëpp loolu moo ko indi donc saafara hépatite bi ma koy créé mu ngi commencé donc ci début soir mooy biñ ma waxee ne ma sa fois bi foo toog ba mu mel nii bi ma demee nag hôpital yàlla daf ma dem ba hôpital gis ne mais ndekete ñi fa nekk bari nañ man moment boobu yàlla may na ma lu may defee janu si gax yëpp mais mu am boo xam ne mu ngi toog pour doomam moom dafa def bilan ba pare indi résultat yi ñu ne ko da ngay fay consultation mu ne amul lu mu ko fayee ma xool ñi fa toog di waxtaan di waxtaan jël ay renseignement ndekete population bi fa toog yëpp hépatite moo te 90 pour cent bi à difficulté man mais pourtant man yàlla may na ma moyen yi ba ma commencé ba man a faju ci li doon jar 150 par semaine ci laa ne non il faut passer à l'acte si laa waxtaan ak programme Aminata Sall Diallo ñu waxtaan mu invité ma benn kii bu amoon ba ñu dem ba association bi judd en 2011 donc tey 2011 à maintenant lu bari jaar na fi wax naa ko mais tey yàlla def bi ma toggee euh, en 2010 euh, en 2011 de du moins bi ma toggee ba def si association bi 10 an avant may dem dafa ji greffe fois bi ci laa ne jot na quand même comme damay dem taxaw ma luy xew association bi ma fexe ba jël ko takk ci loxo kenn ci laa waxtaan ak la dame kii la madame Fatou Ngirane woo ko comme elle bien préparée j'avais fait une bonne formation pour elle woo ko ñu def assemblée ñëpp nangu. moom aussi dafa amoon feebar. waaw comme donc après mu ko suivre di ko traité normalement aussi ah. donc euh, feebar bi euh, daloon na la sunu borom dafa na la sutura euh, ba nga mucc ci am ay sénégalais ay doomu aadama yu la jàppale. Euh, ak say connaissance yi nga am biir réew ak bitim réew te loolu yëpp li ko waral mooy euh, saafara hépatite euh, sëñ bi Guèye ñu ngi lay sant di la gërëm te ñaan yàlla sa taxawaay bi yàlla nekk sa balaa ci dolli mooy da nga wax lu am solo ne saafara hépatite léegi saafara hépatite bii nag lay juste renforcer rek pour doomu aadama yi xam njariñu saafara hépatite li may ñaan population yi mooy gis nga saafara hépatite tey lii mu récupérer ci doomu aadama ñu nekkoon dans des situations difficiles catastrophiques mu permettre leen tey ba ñu moomaat seen bopp ba ñu nekk maintenant dans le circuit de surveillance médicale ba tey jaaxleetuñu si hôpital bi hépatite bi amatuñu stigmatisation te ñu ngi faji normalement kon li may lancé population yi foofu mooy ñu xam ne hépatite dafay wér feebar la buy wér yombul nag il faut le reconnaître tey am nañu traitement boo xam ne dafa baax pour hépatite B day jël virus bi bu génnee mu delloose ko ba mu nekk à zéro benn difficulté lañu am mooy du ko dindi si yaram bi ba mu set mais tey boo demee ci hépatite C am nañ remède am nañ garab goo xam ne da koy dindi ba mu set wicc tey prévention am na vaccination baa ngi fi dépistage baa ngi fi cest à médecin yaa ngi fi jumtukaay yëpp ñu ngi fi pour ñu xeex hépatite bi kon nag li may lancer message mooy population yi bu ñu tiit nañu jóg dem kër docteur def dépistage kuñ ci dépisté négatif nga dem vacciné wu ku ci vacciné wu tu es protégé à koo xam ne am nga ku nga dem ko docteur ñu defal surveillance médicale jël la en charge normalement jàmm ak salaam am incha allah jërëjëf. jërëjëf Ibrahima Gueye euh, ki nga xam te ni moo nekk euh, moo nekkoon euh, président ki nga xam te ni mooy saafara hépatite tey mu nekk ki nga xam te ni mooy teewal mbootaay bi nga xam te ni mooy World Hepatite Assistance fii ci Afrique de l'Ouest wala boog ci Afrique waaw ci Afrique donc ñu sant ko di ko gërëm ci waxtaan wi.